yërmande yàlla ci li muy yaatu yaatu ku rey sa bopp nee na sa mbir xam nga de ku la maanaam xam nga si ku rey sa bopp ku rey nit sa mbir xam ah gars yi gars yi fi mu toll ñi ñi ñi day si mbëkk bi doon yàlla di ñoom maanaam ci xoolal daaw magal ko Porokhane jiwee si yàlla naa jiwee leer ay gars yu jiw fii suba teel yor oto ba nay ndaw daw xelu metti ñaari gone jigéen kër faat waa kër nga jóge Porokhane ñëw de maa ñu ñëw ñaari fan ñaari fan a des ci Porokhane ñu ñu faat ko gars yi indi leen indi leen Touba rob leen saraxal leen ci bis bi daal daal di màggal ma ne ma ne loolu na kër gi ñu dëkk laa de ñaari nit ñi kër gi ñu dëkk bi ñu faatoo Porokhane bi faatoo coono ñu indi leen daal leen di suul def lépp ci dëkk bi daal ñuy demaat parce que mu jeex parce que leen amuñu jot nit ñi amuñu amuñu temps ku dee yaay dee amuñu temps de mbëkk bi ku ñu faatoo gaa yi saraxal la noppi nañ ci am alko da ngay alko ci foofa alko yaa xam sëriñ bu taxaw di fen day fen du mu wax du mu wax day fen xamul ci dara xamul te mënu ca seer moom mënu dara la mënul de moom dara la mënul mënu dara dañu bi yàlla mi la bind mooy la toj ko ah gars yi ndax leer na ah dara daal lu lu jar dem sawara ma amul njaaloo njaaloo lu mu neex neex sawara bu ci duggee xam ne njaaloo ñëgu rey nit lu la jara jàll boo rey nit boo demee sawar xam ne xam ne loolu dara jëru ko ku rey sa bopp coono boobu amoon ba rey sa bopp boo demee sawar xam ne dara jëru ko kon siku bi day njaaloo rey nit rey sa bopp xam nga bakkaar bi ku rey sa bopp ba nga rey nit xam nga bakkaar bi lu buy ama man xasala nafsan bi xëy na nafsin fa kaana maa xasala sa jamian aadama ba ila nafxi fi suur rey leen bakaar bakaar boobu boobu boobu boobu ngay am te xool de rey ab yonent rey sa baay rey sa sëriñ rey wàllu yi bakaar bépp ngay am man xatala nafsan bi xayri nafsin amul amul yilla bakaar maa xatala naa si jamian naa si bare naa si jamian nga rey leen yow yow kenn kii bakaar boobu moom moom ngay am wa man ahyaaha nag moom it naka noonu la ku dundal bakkan yoolu ku dundal ñëpp nga yàlla kooku alxaalis bi alxaal la de du waxi du waxi diw de kooku waxi yàlla la waxi yàlla rek sama bay dafa naan nit ñi dañoo war bu ne yàlla de nga xam ne yàlla wax yàlla moo wax du du doog nit de sëb sëriñ waxut yent bi waxut yàlla mi bind yent bi bind sëb sëriñ moo wax ah gars yi leer na di gars yi. yi si bi ñu ñëw li ñu koy deeseeree mooy nga am yaakaar ba tax juróom yële mara yi jënd nga gëm yàlla ne yàlla moom kat moom adduna lu métti métti wutal la ma kër goo xam ne boo ko duggee fàtte bu coono ah Afrique yi koo xool ni ni métti tàngoor weeg nangam beeg ñaawaay beeg pàq geeg pënd bi lépp ñaaw soo demee war ba ñëw naan ci xam mënu bi rek. waaye day doon tudd dëkk bi te boo jógee Égypte ñëw aéroport fépp ñaaw ñaaw ñaaw ma ma tiit ma tiit ma tiit ma tiit jar jar nor jar Europe ma la tiit la def ma dikkee ma ma li ma naan moo ko ji nga xam dara fi ma dund ma dem ma dina ci kaw ma ne fa ay weer dikk na gaaw na ngaa rafet ma ne xaar bi ñoon wax gis gis nga de te aqaloo bi ma ñëwee lu rafet Ndakaaru dafa ñaaw mais du tey ci lu ñaaw Ndakaaru la. pexe amul Sénégal la am yàlla suuf si Sénégal gii la mu may. oh soo demoon tey naar yi wala nga dem Europe di dox police yi bu seen yaakaar ne yow lay waxal nga ne Sénégal yow dafa yow nànk yow da ngaa dikk ci réew mi yow fii nga am. fii la la yàlla may waaye sëñ bi sëñ bi nañ ko jéem a baaxal nañ jéem a bay nañ jéem a taaba taaba nañ jéem a def lu nekk nagam waaye moom bu ñu dara jaral joxe bakkan bi bakkan moom kenn benn yoon dong lay dagan mooy ci jihaad fi sabilillah i'laa an li kalimatillahi ta'ala allati hiya al-ulya booba dong lay dagan wala boog ku la bëgg a jël sa bakkan boobu te amoo meneen pexe ci fang loola lu may dangaa jël bakkan su boobaa dagan waaye nag lu xat la amoo menn pexe mooy aaroo lu may jël bakkan yàlla nag mi ngi lay gis xam na ne ba xam yow li nga wax dëgg la am tudd defal ci aadama ra doom ja ba ko ba ko ba ko mbokk ma di rey mu ne ko la it ba sa ba sa tey dëgg li li li taxatul nii maanaam bés bu ñu di di taxatul ka ndax loo lu lu ci yow bëgg damaa bëgg sama bakkaar bi nga ngay jël ko fi mu toll nii bu bu la benn waaye doon rey ba ko mu rey la moo gën a wóor bu la reyee moom sa bakkaar bépp lay si dugg ci moom te boo ko reyee mën naa am rey ba tugul ci ci yoon ndax mën naa am aw yéen a woon fee boo ko dul ci tànk bi mu dam du la mën dara te defoo ko jël ab jël ab ab fetal dóor ko ci bopp nit te dóor ko ci tànk yi ko def ah xam nga yow fetal la boo tax mu munoo dàkk tànk bi dóor ko mu léegi dóor mën dara waaye nga teg bopp nga wax nga ne daa bëggoon na rek yàlla gis na ko de loolu loolu loolu daa ngi laaj kon daal lii gars yi nekk nañ ko mokkal laa xayaata xarama la Mouhamad lan përi ak ak ab économie su bu mag la waaw moo ko waral banque am na lu ñu tuddee banque misra moo ko créé woon waaw booba engrais bi dañ booba yor lépp waaye mu fexe ba créé ab banque bi moom Mohamed Faye ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan la day tukki waaye amul yéene xam ma
ah ah bu ñu si daal mooy ñàkk yaakaar ak amal safaan bi mu yeesu ñàkk yaakaar ki dugg ci mbëkk mi dafa ñàkk yaakaar ne mënu turaaw
comme ça ki nga xam dafa xaru am bi bi mu dugg si gars yi pour dem bi mu dugg si gars yi pour dem amul woon yéene xaru daa amul yéene egg mais kon su faatoo ko daa xaru léegi
alxuraan dane wala tulqu bi aydikum ay taxlu ab looce boo xam ne xam nga ne mënut a daw junni kilomètre nga dugg ci ne mën naa mën naa am yàlla ne ina sanna laa yughni min al-haqqi shay'an jot jot mënut a wut dëgg waxal leen loolu waxal leen yàlla moom la moo la wax loolu am nga xel bu dugg ci daal dugg ci tëdd ci tëli ba oto aw ci sa kaw taxu taxuta dee am naa ci am naa ci firnde keer jël naa taxi wàcc taximaan bi mere ma maanaam léegi maanaam bëgg ma fiir sama siis bi la la la siis bi mooy siis yi nekk ci kii bi fure bi aw na ci ba ma dégg xoddet gi xool sax defu ko kooku yàlla la waaye am na koo xam ne bu doon moom dee na kooku yàlla lu lu ne mën naa am waaye yàlla dara la yow ginnaaw mënoo dara defal li ko man oto taxi aw ci kuréel bi aw ci ba foddet foddet ji foddet xam nga foddet def na ko sama sama tànk ma ne nii yëkkati dara méttiwul maraay dara xusul kooku yàlla la waaye nag yàlla du ko defal ñëpp nag wala xalkul xaa rek war a am ko kon ne ne nekk naa def kon maanaam léegi mbëkk mi ku dugg ca gaal yu ñàkk solo ku ci dugg dem da ngaa xar kat xar nag muskila mooy xamee suuf lu su ko ñaanal xamee suuf lu su ko ñaanal jégal ko ku ko xaru da dañ koy bàyyi yàlla
mu ko ñaaw mu jégal ko
loolu du jëgg Macky Sall boo toog boo boo ànd ak sa waay ba def ci Macky Sall day ma toog toog waaye jël pes dooñu Macky Sall day na ma jigal ko ah boo ko waxee da da da ñàkk digg ah sañoo ko
ah mais jullit la ah comme moom jullit la moom ah ki nga xam ne daa xaru def loolu noonu jullit la
li li lislaam xaru bu muy jullit yëfar yëfar du xaru ah kon nga ko yëfar bu ñu waxee xaru rek diine bi nag waaw kon jeex na bu ñu ne bu ñu ne bu ñu ne ku xaru yëfar bokku ca yàlla ki mu considéré mooy jullit leer na ah ñaa leer xaale waaw ah oh atte ku ko xaru ngay am yow don doon dana faatu woo am nga at am nga am nga am nga bakkaar waaw déglu leen ba xam soxna soxna si fulla leen ne fulla ne ko jaxande waaw avant ak oto ak albi yi di am.
waaw bu daan tukki jaar si suuf si.
ah ay dañ daan dox wala ay jërëm di loolu.
waaw bu dee ndox la jaar si gars yi di jaar.
waaw léegi bu ñu daan jaar jaar loolu xaw a wër bi.
maanaam gaal la goo xam ne am xel moo ko liggéey avion nga avion ni mu diisee nga di di raw ci jaww ji xel moo calcul ba xam ne mën naa naaw ci ci kaw jaww ji gaal ji rek moom xel moo ne mun mun munta naaw munta dox ci ci ci ndox mi bàgg xele ko wari bët du yenu nga xam ne xam ne lu ko paatal jeex na xel xel ma attelé mu atteli waaw fekk na ñoom gars yi dañuy yem comme ça moom ñu war a xam.
ah comme gars la.
Hmm.
dañuy nangu ñu cee mën a góor.
ah moo tax ñuy ñuy.
déedéet déedéet loo ca munta munta dem Espagne ah daa fekk seen daal.
yow xam nga loolu bato yi mooy mooy mooy tukki bato mooy tukki daal fii la yem ci tefes gi
ah mais bu dee gars yi tax tukki moom ku ci dee doo kon xaru woo bu fekkee bateau dox.
loolu la loolu maanaam léegi ki dugg ci loo xam ne mën na caa dee dee ah mën na caa dee wala turku bi ay diikum ah seetalu ko bul yób bul joo sa bopp si alkane bu ko bato dugg sa sa sa kaar loolu moom dara ah comme comme comme bateau la Jolaay yi ñoo ñooñu moom xaruñu ñoom déedéet parce que waaw
mi ngi mel na accident bato bu baax a baax maanaam dara xew waaj na ñu mu mbëkk ko dara bi ba bato la joolaa ñoom réussir ko
waaw lii du ko ñoom di fay seen xaalis war a dem Dakar am na am na lu ba ba taxawal xew ba ba léegi gi yow boo duggee avion mu daal ah xel wuute avion calcul nañ ko ba xam ne avion bi mën naa naaw waaye nag dañoo am njunte loolu la bu doon lekk fot faatu doo te am njaayeen la waaye nag du du waaye du xaru ah gaaw da dafa bëgg lekk rek ba gaaw bi nga xanaa ceeb balaa jeex ma lekk ko waaye du xaru waaw su xaru de du xaru ah
waaw xam-xam yu neex
waaw wa- wax naa léegi mu dina xam wa- wax naa ko wax naa Cheikh Fall wax naa Cheikh Lo wax naa Cheikh Ndiaye nañ dugg ci galaas yi wala ñu ne def fii ab waxtaan boo si sëñ sëñ Abdourahmane mu présider waxtaan wa bu noppee jël kàddu noonu suñu responsabilité noonu nañ ko dégager ok
noonu ñi nga xam ne noonu diine lañ jàng noonu lañ xam ci diine nañ ko wax nit ñi am na ko ñu taxawal fee ñu lay la ñuy gudd nangam nangam may leen ma ma- ma ne leen yow yéen xamu leen dara yéen yéen xamu leen di am ngeen bëgg yéen amul bëgg ma ne ko xool ko yow xamoo dara yow xamoo dara bi maa maa la raw fuuf xanaa xamoo dara yow waaw léegi nag loolu kon toogoon ab débat ñu waxtaan ko dañuy posé question ñu tontu leen loolu ci la c'est-à-dire dëgg- ndax xale bi mën naa am ñàkk xam gi ñàkk xam gi moo moo koy jiw yow mi ko war a xamal nag yow am nga ci musul yi ah am na musul yi noonu Hmm? Trans- trans- trans- trans. am na ci musul yi noonu maanaam noonu ñi nga xam ne noonu ñoo jàngkat yi noonu xam ne am am seen seen bayit si si Abdourahmane war naa ñëw fii toog fekke waxtaan wi bu nekkee mu jël jël ci ci kàddu joxe woon ndigal en tant que sëriñ joxe ndigal ndigal ah maa ngi doon ndigal képp taalibe yi loolu moom sëriñ Tuubaa nanguwu ko wax ngeen li mu xam moom ginnaaw ba nag ku def ah sëriñ bi dafa ne wàcc na wàcc na leer na.
macha allah
kooku sa baax ma ma ma ma fi.
waaw yaa ngi moom. ñu ngi moom ñaar la woon de. amiin amiin.
ma man moom du ma leen ñaanal man maanaam tey soo yóbboon sa xarit ca Macky Sall président Macky Sall toog doomam toog sa xarit bi baa doola ba pes doomi Macky Sall buñ ko dee pamte pamte yóbbu dañ ca wax dara yow bu dee nit ki laa de boo ci waxee dara da- dañ lay bëri moom yóbbu leer na.
kon waaw. waaye waaw kon comme ça kon dinañ ko jullee ah ma ne. ko kon léegi ñoom lu tax ñu comme ça ñu koy jullee di ko waajal dem toog ñaanal ko.
maanaam noonu noonu mun doxuñu doxuñu noonu ci biir mun li li ñuy dox mooy aada diine dafa am diine ku dul julli kenn du ko jullee fii ku dul ku dul julli bu fàttali jullee la mun doxul diine aada yi aada la ko ko kon kon fekkee ki xaru moom aw yoon may ñu jullee ko.
li tax li li li tax duñ duñ ko jullee dañoo bëgg a tiim lu nit ñi lislaam ji boppam moo ne bul jullee kii mbiram lënt na ba ko borom ah xam nga fasalu ahli dikri am na waaw.
yàlla bu amee 18 ans da nga war a dem laaj xam nga xel na yow xamoo xamoo marché ba da ko laaj ba ba- ba dem fa maanaam daa war maanaam nit nit daa war a laaj lu mu xamut nit nit war a dugg ci lu mu xamut nit nit laa nit wa- wa- waxoon nit nit rek lu tax laajoo sëñ bi daanaka loolu lu mu wax man ko laajul man ko xamul laajul koo xam xamoo leen xamoo laajoo taxawaay ñu la man ah man man ne woon na laaj nga laaj su su ma xam nga si bi islam nag bokkut ak man ne wax mooy islam xëy xëy man mën naa wax ne moom kii nangam waaw mu koy mu ko àjjana mën naa moo xam man man àjjana man man man man moomu ko man mu àjjana de soo seen ñu dugg ba waaye man moomu ko nag comme neex nag nga nga dikk ko ba ko la neex ku ku ne la woon bu subaa nga doon ba pare sida lan ko gëm yowoon loolu suñu taxaw xool dana tax a jàpp ne da nga dugg tey tey ci pare bi suba naa ci am yaakaar de.
yaakaar fan daa ko loolu loolu xel wut daa xel xel wut dafa am ay normes dafa am xel daa am lu mu xam norme la norme si bi ka man loola ka man loola ñëw na ka man loola Cheikh Moussa Ba guerre ba metti tane kan cinq mu ne mu ne su su- su ma kii rek ma soppi ci gi guy yi xaalis mag ñi xamuñu lu muy wax ñu xëy xëy toit bi déclaré ne dañoo bëgg ci gi guy gars yi ci gi guy yëpp dem jaay leen ko xaalis bu bari toit bi dañ ci ko xel xamuñu ko def ñu génn ko rek kooku kooku borom doy la borom suñu biir la ah sañ sañ la kooku sañ sañ la si mu taxal nee na sañ sañ balaa am sañ ji am da ngay dee wett ba noppi soo soo soo saa bu bëgg bu bu buntu yàlla bi bu bu yàlla mag la suñ bi gone gone dafa bëgg doom des bi waaw ñoo xam ne dafa dafa leer dafa dafa leer.
naaj lu sigle lu sigle lu sigle suñ bi ku ne la nangam ajjana mën nga koo am te doo sonn si si si si laa neewoon na mag ñi def loola neex am loola neex fu fu ko way digg na ko wuti amul ci Ahmadou Mbacké amul fi ne so su soxla mu kenn de fu ko way digg na ko wuti loolu suñu yaakaar la wala toogul ay dégg mu wóor seet yàlla moo moo moo ko gën a ku ku jiwoo sa bopp ci alkande boo faatoo dem soxla loolu mooy atte bi yàlla nag su ko neexee day fekk mu soo jóg ñu muy muy bu ko sawar fekk man min di ma la ca far ñu ñu ko jël kooku moo ko neex waaye logique bi mooy su ma bëggee dem sama kër li yenu maanaam mooy ma jël oto waaye du du du ma dox wala suñu bi saam jaxte gi ma dëkk moom dama na ko dox àgg fa li léegi loolu lu si ko fi lu si ko te yàlla du ko jël ah wala suñu bi yàlla nag moom man mën na ko mo- mo- man damaa wax ay baat rek yàlla solo ma ko ma wax ko daal di àgg loolu yàlla waaye yàlla li li jox jox na ma lu paas bu boo mën a jël rek si léegi dem loolu kon mooy lu si mooy ma génn fii jël rek si dem sëñ bi loolu leer na de waaw.
alaxira wuti wut de koy dof dof lu ba ba dem àllaaxira war a dugg sa war bii man ak kooku àggu na loo doon bañ da nga gis lu ko raw ah gars yi ñoo ko lim de lépp xam naa ne dafa leer na.
leer na ne moom waaw macha allah